cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi di Bi TV a fës ci xabaar yi nag dañu koy door rek guddik altine jàpp talaata bi nga xamante ne rek daal dinañ ci nemmeeku ab xabaar que ne kii di Ousmane Sonko daal dinañu koy bàyyi moom ancien leader parti bu Pastef bi nekkoon détenu foofu ca Cap Manuel mbir mu nu mel nag mi ngi jur ab propagation rek ginnaaw ba site internet yu bëri daal di koy fësale ci réseaux sociaux yi nag mu waral rek ñëpp daal di génn def mobilisation bu am doole dem wutali ji nag fi nga xamante ne moom mooy ca këram googu di cité kër góor gi mu nekk ay supporters yoo xamante ne nemmeeku nañ ko fa ay média waaye nag fi nga xamante ne moom moo ca buntu kër Ousmane Sonko rek boobu de événement nag dafa daal di rek mujjee ci ab espoir boo xamante ne daal di nañ ko fay yëkkati ñu gis fa nag teewaayu mbooloo mu takko takko waaye xibaar bu nu mel daal gis na ne nag dañ fa daal di rek nekk ab xabaar boo xamante ne rek dëggoogul lool waaye nag li nga xamante ne rek moom la nekk jamono ji ci langum politique bu Sénégal kii di président Macky Sall ci volonté bi nga xamante ne daal dina koy am nag ngir delloo delloo si waat jàmm ci biir réew mi ak mesures yi nga xamante ne rek daal dina koy jël ginnaaw ba mu sàkkoo ñu libéré ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy détenu politique yi nekk ci biir prison ñu ñu considéré que ne nag ñii di opposition bi nag ñoom ci seen jëmi bopp nag ay détenu politique lañ du toll ci a doomu aadama rek na dinañu am bénéfice ci boobu liberté mu nekk décision boo xamante ne rek kii di ministre des Sceaux Aïssata Tall Sall daal dina koy jëfee ñu fàttali leen nag kii di ministre bi di Aïssata Tall Sall dafa daal di ci talaata ji dina def nag ab jàkkaarloo